الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكيكنا من سنتي الله سبحانه وتعالى لقد لكم di ko ñaan jéggal suñu bakkaar di tuub di dellu ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jéggal suñu rëcc ci bakkaar te di ko ñaan moom yàlla mu jubal moom mi nga xamante ne képp ku mu jubal texe ko waaye képp ku mu seetaan ci maamute ak asam ko mu kenn ñu koy mën a jubalaat ñu ni seen naa ma kenn teewa jaam ci dëkk moom subhanahu wa taala te ñeent ñu koy bokkaale kenn ñuy seetlu suñu sama Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaamam na la woon na tànn ñu la yàlla ci ak xeer ak i saxaabaam ak képp ku topp ci dugub yéeg guddi yéeg bëgg yéegi awut mbokk ñu dégg suñu bopp leen dégg ragal yàlla subhanahu wa taala nim ñu ko déggee ci alquran al karim ñu déggee gaa ñu gëm na ngeen ma ragal dëgg dëgg ragal rek boo leen faatu lu dul da ngeen wommatu jëm ci man bokki suñu bëgg yi ñu ngi ko fas yéene amal ci al xaqu ala ihtinami ma tabaqa min ashrati al hijja wa minha yowma arafata mooy soññ ak këltal nit ci fukki fan yi nga xamante ni waxoon nañ ko di weesu mooy fukki fan yi borom bi subhanahu wa taala bind mooy fan yu gën ci àdduna ci àdduna mu bokk ci fukki fan yooyu bis bu tedd bu ñuy wax yow arafa yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni ma min ayyaami al-amali salih fiha ahabbu ila allah min hadihi al-ayyaam amul bépp jëf yoo xam ne jëf ju sell la jooy def beneen yi jamono jooy def boo xamante ne ci fukki fan yi la gën a yàlla bi alayhi salaatu wasalaam waxee lool saxaaba yi dañuy ko wala jihaad fi sabilillah ba ci xare ba ci jël say dan naa dem xare bi ci yoon yàlla mu ni leen wala jihaad fi sabilillah ba ci xare dem takk xare dem dem ji ci yoon yàlla saraxa ci jamono ji wala dimbali ku munul ci jamono ji wala julli naafila ci jamono ji wala tudd yàlla ci jamono ji jàng alxuraan ci jamono ji dem ci jàkkale julli ci jamono ji moo gën a yàlla fuuf lu koy def ci beneen jamono alayhi salaatu wasalaam wax ni lu dul nag waa joo xamante ni illa rajulun xaraja bi nafsihi wa maalihi fa lam yarja min dalika bi shay lu dul koo xamante ne nag génn na jamono ji muy fukki fan yi dem xaraj yóbbaale lépp lu am ci alal te bakkanam dellu suul alalam dellu suul xanaa ko kon mbokk yi jamono joo xamante ne la jamono ju rëy ju mag ci kanam borom bi subhanahu wa taala moo tax alayhi salatu wasalaam waxal salawaati min axadatin afdal ayaami dunya ayaamul asr muy fan yi nga xam ne moo gën ci at mi moom mooy fukki fan yi ne ñu nekk mu wax moom alayhi salaatu wasalaam tey ne maa min ayaamin acdama inda allahi wala axabu ilayhi alcaqlu fiihinna min hadihi alayaami asr فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد منير amul ci bis yi bu gën a màgg ci kanam yàlla subhanahu wa taala ci defal yi lan ci di defal ci yekkal ko ci muy nañ ci bëri lu ñuy tudd yàlla ci la ilaha illa allah wa sabbaat ak di ko màggal ci allah akbar ak di ko sant ci alhamdulillah mbokk yi ci fukki fan yi bis bu màgg la ci yeneen bi yow maanaam يجب عليه الصلاه صيام يوم عرفه احتسب على الله انه يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده رواه مسلم مني بسبيغا من يحدث عرفه muy tolloog juróom ñeenteelu fan ci weeru tabaski ci sa xit ñuy bàyyiloo xel ci bis bi ñuy wax bisu arafa ci nit koy nattee lu mel ni daaw amoon na ay njumte yoo xamante ni amoon na ci ñuy wàññi bisu arafa mooy ni suñu commission nationale su nee ne moom di bisul weer kon dañuy ca ëllëg sa la ñuy mottali fanweer soo ko tàmbalee wala ñu weer ci bis bu topp kon dafay rawantee fee nga xamante ni ñoom gis nañ ne gis nañ gis nañ weer ni lu maanaam al arafa al waqt al zaman bis la boo xamante ne kenn du ko natt ci fenn ci àdduna bi fu dul ci makkatal mukarram arafa makkaan la ci bërëb la bërëb boobu nekkul fenn ci àdduna bi dul ci mag kon bu ñu waxee taxawaayu arafa soo koy natt doo ko natt ci sa commission bu dee dafa wuute commission ba yow mu arafa mooy juróom ñeenteelu fan ca waay ca taxawaayu arafa yow mi topp ca commission bii comme ni mu amee suñu jamono jii nii boo ko nattee ci benn fan ñaari fan di ko natt di ko compter comme ci commission bisu arafa dina la rëcc te taxawal arafa ca mag yooyu yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ni koo dogu ni woor bisu arafa mu ni képp koo xamante ni yàlla fekke na la ko nga woor yàlla mën na laa jéggal sa bàkkaaru at bi nga weesu ak at bi nga xamante ni mooy bi nga bi nga jëm moom alayhi salaatu wasalaam jàngale ci muy xayru doa ñaan bi gën ci yow mu arafata ca bisu arab mooy ñaan bi nga xamante ni moom la jàngale mu ne xayru doa yi doa yow mu arafa wa xayru ma kuntu ana wannabiyuuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne ak ñaan boo mën a ñaan ci bis bi ndax bisub ñaan la jamono ji jamono ñaan la waaye ñaan bi nga xamante moom la alayhi salatu wasalaam jàngal neen lu gën ci lu mu mës a wax moo fa gën ci ko jiitu woon mooy wax diin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mbokk yi lii la alayhi salaatu wa salaam jàngale ci taxawaay wa arafa ci bis bi muy góor ak ñaan ñu yoonal nag ci bis bi nga xam ne mooy bisu yow mu arafa ginnaaw bi nga jullee fajar ba pare ci bisu arafa julli farata boo julli rek nga def ci ay takbiraat mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar tàmbale ci fajar yow mu arafa ba ci ca ëllëg sa muy yow mu naan bisub tabaski ak ñetti fan yi ko topp mu ayyamu tashriq ñetti fan yooyu yëpp ak bisu tabaski ba ci bisu arafa bi yoonal nañ ci képp koo xam ne julli ko julli farata pare nga teg ci ay takbiraat yu bokkul ak nag tasbiixaat yi waxoon ni moom di weeru pétéro muy bis weeru tabaski bi saa su ne nga koy saboo di tudd yàlla ci ay tabliir ak takbir ak ay takbir ginnaaw bis bi ñu si yow mu arafa ba kii bis la ca topp muy yow muy bisu tabaski yonent bi alayhi salatu wasalam inna a'zama al-ayyaami inda Allah yawmul nahri bis bi gën a màgg ci yàlla ci fukki fan yi mu wax mooy bis bi nga xamante ni ci la ñuy tuub dara bisu tabaski ña nga xamante ñoo nekk ci Makkatal Mukarram seen taxawaay aarab ci ëllëg sa dañuy dem ca ña defoon ca Makka ak ñi defoon Qiiraan ñoom dañuy tëj ngir mën a summeeku summeeku nga xamante ni dese na leen tawaafu ifaada ngir mën a summeeku nag ba ci seeni soxna mën na nekk ñu lu dagal ci ñoom waaye yow nga xamante ni yaa nekk fii amaana bisub tabaski ñu ngi ko jàpp si bu dee ca arafa fële bu mu la rëcc suñu ëllëg si fii mooy suñu yow mu taasa ci suñu gouvernement national bis ba ca toppaat day dugg ci ay yaamu tashriq mooy bis yi nga xamante ni li ñu yoonal ci ki amul tabaski ci arafa ba ci ëllëg sa mooy bisu tabaski soo ci amul li tabaski bés ba ca topp boo ci amee tabaski mën ngaa leen sant ba ca toppaat soo amul tabaski ba ca toppaat mën nga cee ren sa tabaski boo ko amee ba ñetti fan yi man ñetteelu fan yi muy ay yàmmu tafside bi bu xasee ba jant ba soo boo rayee am xar ndam du am am loo tabaski tabaski bokk yi sunna su mu am xelal du farata sunna mu am xelal sunna soo xamante ni yàlla mu ko dekkilaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir ñaan li nga xamante ne nekkoon na ci maam Ibrahima alayhi salaam al ko jox yam muy tabaski mooy gàncax gi ngay ren bi sa fekk nga mën ko nga am te xaw ko ba ko yàlla taala nga ne ko ko yàlla tax ki nga xamante ni yàlla defal la wërsëg nga am xam tabaski boo ren kooku wàcc na la ki nga xamante ne dafay xaraam ci moom ki nga xamante ne ban xaree nekk ci moom mooy ki am lu mu jëndee xar tabaski nga jënd xar tabaski kooku la mu def moom du xaraam ci moom day bokk ci nay waaye ki nga amul kooku wàcc na la bu ci rey sa bopp bu ci def loo xamante ni ëllëg da lay topp ci ay coono ak lor te xam ni yow mi amul xarum tabaski loolu du gàcc ci yow alayhi salaatu wasalaam muy ren yow tabaski dafa ren di ñaari xar ni bii de ngir man Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak sama njaboot waaye bii nag moom ngir sama xeet képp koo xamante ni amul xarum tabaski yóbbaale na kon kay boobu moo gën foofu yow li nga xamante ni danga sa bopp coono wala fii moo ko réew sax ci am xarum tabaski kon mbokk yi lii di xarum tabaski ñii la ko islam jàngalee ci nañ ban jamono lañ ko war a ren ginnaaw bi nga xam leneen ni lii di xaru tabaski boo koy uti dafa am yoo xamante ne da nga ko war a bàyyi xel ci xar bi ngay jënd bi ci njëkk mooy li ñu daganal ci ñu war koo tabaski mooy jur yi nga xamante ni mooy juri kër bi ci jiitu mooy am xar ay atamit islam wax ne xar mi nga am juróom benn weer ak lu ko bu mu wees juróom benn weer ba amuleen xar mu ni bëy bëy dañ koy tabaski waaye nag bëy bi am am at wala lu ko wala nag waaye nag bi na am ñaari at wala lu ko wala gëléem gëléem bi na am juróomi at wala lu ko yi mooy juri kër yi nga xamante ni moom la islam wax ne booy tabaski yii ni boo ci amoon nga cee tabaski jur gi ngay ut nag muy jur yi ñu wax léegi nii bu ci benn am yii sikk ñuy wax mooy bu mu nekk jur goo xamante ne du gis du gis maanaam dafa silmaxa du gis mën nga def nag ci uti xar gis xar moo xamante ni muy xool njàccaar ne gisul yooyu ki nga xamante ne mooy kiy jaay xar am nañ ko responsabilité bu fekkee xam na ko ci xar waaye kiy jënd it na bàyyi xel yooyu leen màndarga ba bu ñu koy jaay xar mu xool ci bopp leen màndarga ñaareel mooy bu mu nekk xar moo xamante ni wala jur yoo xamante ni dafa feebar bu feebaree kooku matu la tabaski bu mu nekk it boo xamante ne dafay soo ba kookool xam ni xar bi xar bi soo loolu ak manqué la ci li ñuy wax jur bu ñu war a tabaski ñeenteel mooy moom ne jur boo xamante ne dafa ràgg ràgg ba boo ko xoolee xam ne kii moom loof na loofaay boo xamante ne boo ko rendoon ñàpp bi dafay rettax boobu la jur tamit bokk na ci wax ne sànqal nañ ko ci boo xamante ne dafay tabaski bu koy tabaski li dagan bokk ci xarum tabaski niñ koy tànnee noonu la ñuy tànnee xarum jur ban waxtu nag la ñu war a rendi xarum tabaski bi mooy ginnaaw bi nga xamante ni julli nañ julli ayit ba noppi ginnaaw boobu noonu mën ngaa dem rendi sa xarum tabaski moo tax alayhi salaatu wasalaam bi man la dama qabla salaat képp koo xamante ne rendi na xaram laa taatu bi fa innaha huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min al-nusuk bi shay nee na ndawal la rek loo xamante ni jëm na ko sa njaboot waaye nekkul loo xamante ni day wuyoo ci tabaski أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi sant ak yàlla subhanahu wa taala di di sant ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ba tey ci fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fan yu màgg yi nekk mu bokk ci yow mu arafa ak yow mu naxar muy bisub tabaski yàlla ci yàlla yegg leen jàmm yow mu arafa tolloog le 26 muy mardi bii di ñëw incha allah mooy yow mu arafa yoonal na ci yow mu asur bi ci fukkeel fan bi ci képp koo xam jullit nga nga teew ci jullitaay bi yoonal nañ ba tey ci bisu julli gi ñu def ci li ñu mën rawatina ci li ngay jëfandikoo ci li ngay lekk mu nekk loo xamante ni mu bañ a am benn israaf wala tabsir israaf mooy yàq jëfandikoo loo xam ne dafa dëpp sa li nga soxla tabsir nag mooy yow lekk ne lii moom bu ko rek dong du ma la ko tax a def dressé daaw loo xam ne li ci def lépp lu boole jëfandikoo loolu tabsir sarkal nga ba tey ci koo xamante ni dafay dem ci bisu ay ko ci jullikaay ba mu jaar ci yoon woo xamante ni ba muy ñëw yoon ba mu jaar buy génn mu jaar dafay yoon boo xamante ni bokk la yëpp jaar mbokk yi ñu ngi ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi dem mooy bis yi tedd yi yàlla dafa ñu wér te yàlla yombal lépp loo xamante ni ñu ngi ko ci fàggu ci xarum tabaski ak ci li ñu bëggalee suñu njaboot ndax feet la boo xamante ni mooy ñaareelu feet bi ci feeti islam ñetteel bi mooy bis bi nga xam ne mooy bis yowmu jumaa ñaari feet yëpp benn bu ci nekk day fekk ñu jóge ci jaamu yàlla bu mag koor gi ñu génn jaamu yàlla bu màgg la nga toog weer boo xamante ni bëccëg bi doo ko lekk doo ko naan sori ci lépp loo xamante ne bakkan nga dem ba ñu ni weer bi feeñ na ñu la koriteer maanaam feetu kooku ñoo ko moom tabaski mu tolloo jaamu yàlla bu mag muy juróomeelu ponk ci ponk islam bi ak xaj ñu koy jeexalee ak feetu tabaski muy yowmul nax muy feet yoo xamante ni njaboot gi dañoo war a xam ne lii mooy suñu feet ñu dégg ci yàlla yàlla yombal kontaan ci yàlla yàlla yombal defal ci leen ci lépp loo xamante ni lu luy lu leen di dëgg loola waaye mu ànd ak ngërëmal yàlla gisee lu coow ko bu ñu ñëw ba fekk tabaski jot nga ne damaa bëgg njaboot gi dëgg ba tax nga jël sa njaboot gi melal ko melokaan boo xamante ni dafay uute ak melokaanu jullit bu dee jigéen ñi nga létt leen mais ci wàcc ba ci suuf solo yéen ay technique yoo xamante ni fu ñu romb nga gis seen kër jur gi dañu ci ma taxaw jur loolu responsabilité bi borom bi sa doom yu góor yi xew léegi muy ay idol ci watif yi nga jël sa doom yóbbu ko ba ci waxtaan wax ko wax boo xamante ni bisu julli bi da ngay ànd ak moom ni allahu akbar jàkkaaroog yàlla ci melokaan yoo xamante ni dama laa la wala ay tere yooyu ay masuul la yoo xamante ni borom kër ku nekk war na ci bàyyi xel ci njaboot gi la yàlla dégg nga bàyyi ci xel yàlla rek yombal ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السليم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتي رحمكم الله